mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di siyaar di leen ñaanal jàmm te koy sàkku ci yéen juróom-ñaari waxtu jot ci suñu makkaan xibaaru marax gi li gën a fës ca boobu. bokk na la ca gën a fës ñu fas ne ko doore ni ki tey di fetum Ascension suñu mbokku quartier nii doon ko màggal nag mu doon na bés bi nga xamante ni moom la Youssou Christia daal di demee ca fa nga xamante ni moo di ci kaw asamaan si noonee la ñu defit dem ci marché bi ngir xool tolluwaayu la nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo. ginnaaw bi buñ ca jógeet dañu daal di addu ci li nga xamante ni moo jëm ci conseil constitutionnel yoon verdict ba nga xamante ni moom dañu doon xaar ku jëkk politique yi dañu daal di dàq la nga xamante ni moo doon seen càkkuteef ngir loi bi jëm ci wàllu parrainage bi ñu daal di koy dindi loolee mu mel ni dañ ko daal di bañ ginnaaw beet ñu waxtaanee teewaay gi nga xamante ni jëm na ci euh, président groupe euh, directeur général bu euh, origine SA di El Hadj Ibrahima Ndiaye ñu nommé ko PCA télé bii nga xamante ni nag moom moo di TDS SA noonee MSN yëkkati ci ay CD ci moom liggéeyam li nga xamante ni jot na ko amal. danañu waxtaane tolluwaay wi nga xamante ni moom moo di nekkinu ñi nga xamante ni ñu ngi ci prison yi koo xamante ni yàgg na ci bërëb yi def ci lu bare bare ci ay at indi ci ay ceeb. mbokk yi kon euh, loolee moom mooy taxañu xibaar yi ñu fas yéene tàqar ñi dal leen ak jàmm ci première chaîne privée bu Sénégal 2STV comme ni ñu ko waxee woon rek dooree ko ci soobu xibaar gi ak li nga xamante ni moo di fetuk Ascension gi di fet gi nga xamante ni suñu mbokku quartier ni ña ngay fàttaliku bés bi nga xamante ni moom la Youssou Christia daal di demee woon ci asamaan si noonee nag ca cathédrale bu Dakar niki tey ji nii am na ak taxawaay ak màggal bu nga xamante ni moom lañ ko defee ñu ànd ceeg Ibrahima Diédhiou ci teewaay ci anam yi la ñu amalee fête ascension fii si cathédrale bu Dakar bés bi nekk na bés bu am solo lool si bépp fidel ñu bari ñoo fa teew ngir amal ko comme ni ñu ko defee at bu nekk mu nekk bés bu am solo lool ci ñoom ës ñaanalante jàmm ak tamit ñaanal Sénégal jëm kanam. importance bi ñu def tey mooy euh, euh, yéegu yàlla euh, Jésus vers le ciel cest à ci kaw asamaan loolu Jésus waxoon na ko nee na dina de dina ressuscité te dina yéeg ci kaw asamaan pour ñun chrétiens yi loo xam ne lu nu gëm la donc loolu la ñaan tey ñu ñaanal Sénégal yëpp ñu ñaanal. ñi feebar jóg ñi am jàqare euh, vraiment seen soxla faju et surtout que ñu ñaan aussi pour que ñun ñëpp ñu manko manko ci kaw liggéey dëkk bi bëggante pour suñu Sénégal avancer. ci homélie bi ñëwaat nañ ci taxawaay bi nga xamante ne ñu ngi koy xaarandi si bépp citoyen jàmm Sénégal ak tamit ci àdduna yëpp nekk na li nga xamante ne soxal na leen lool ba ci si bi ñu ngi ñaax ñëpp ngir ñu bàyyi xel si jàmm boobu lee jàmm jàmm rek uh, laaj suñu borom bi ah uh, mën am ci suñu réew mi euh, jàmm jàmm salaam. tey jii ginnaaw seen ñaan yooyu lee am nañ yaakaar ni yàlla dina nangu lépp li nga xamante ne ñaan nañ ko foofu lee Ibrahima Diédhiou fête gi nag day faral di ànd ak ak ay berndeel xéwal yu nga xamante ni ñoom danañ koy far di jëfandikoo bi la yoon ñu ànd ak Aïssatou Diop Tall mu doxantu ca marché ba xool yàpp yi nga xamante ni ñeel na mbaam naka la prix daal di toogee ba xam amu ca ak certe am déet ñu ànd ak suñu naataango yooyu ci reportage. yàpp mbaam bokk ci dundinu doomu aadama. rawatina ñi nga xamante ne du ñu ay jullit mu nekk nag ab ndawal bu nga xamante ni jafe na nga gis ko ci marché yi loolu sax li koy firndeel mooy li mu raar ci loolu sax ab njëgam dafay yokk saa sune rawatina ci jamono ji nga xamante ne fetu kër ca ngi la ci loolu sax ab njëgam dafay yokk saa su ne rawatina ci jamono ji nga xamante ne feetu kër ca ngi la. ah feet bi daal ñu ngi xaar ñu ngi xaarandi clients yi peut-être que génn gu ñu mees te am nañu yaakaar ni que clients yi dinañ ñëw parce que communion yi ñuy waajal xam naa ñu ngi ci yoon bi kilo bi ñu ngi koy jaayee juróomi téeméer non cherul cherul cher na parce que nekkul loo xamante daf ñoo gënal dañoo am ñu ñuy bi Bissau Guinée yi ñoo tax prix mbaam cher léegi ba mu daal di yegg ci 2500 mais commencé wu woon foofu. njëgu kilo kilogramme bi nag mu ngi toll ci juróomi téeméer njëg bu nga xamante ni ñii di clients yi ñoom jàppewuñ ko dara pour ñoom sax ndawal bii moo dàq ci xeetu ndawal yépp. prix euh, c'est vrai 2500 lay jar mais comme ni ma ni ma ko waxee rek euh, jar jar na njëgam parce que mbaam moo moo manqué dëkk bi yépp mbaam moo manqué boo xoolee ñii. fi ñu koy wutijee sori na yàpp bi yàpp bi doo ko comme li may wax yàpp bi doo ko doo ko tagale ko yeneen yàpp yi moom bi bi amul moroom moom comme euh, ni ma ko tàmm di defee euh, saa su ne ci bu ñu amee fête katolik ak éventuellement dimanche wala yeneen euh, fête yi ñi am donc dañooy tàmm di di di togg yàpp mbaam te buñ koy jënd it fii la ñuy faxal di ñëw parce que fii vraiment mooy marché marché bi pour ravitaay wu ci yàpp ci constat biñ fi def nag yarkatu mbaam yi ak ñiy jaay yàpp bi ñoom ñu ngi ñaar seen mbokk yépp ñu daal di mobiliser wu ci fête bi nga xamante ne day firndeel yéegu Jésus Christ ci kaw asamaan loolu nag mobilisation bi nag liñ ci bëgg ngir daal di trouver ay piste de solution ngir mën a redynamiser lii di filière mbaam xoox waaye tam ngir gën ko moderniser mu di feetu Asang Siong gi ci la ñuy daal di jóge foofu dem ca diggante Kolda ak Kaolack foofu noonu nga xamante ni nag ñoom producteur u semence yi la ñuy càkku ci nguur gi ñaari téeméeri million lañ ko daal di xayma loolee lépp bokk na ca la ko wundu yeexte gi nga xamante ni gis nañ ko ak lay laxasu di ay gàllankoor ci yenn ci ay mbir yi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo jëm ci wàllu mbay mi ka yor kàddu ko di Mamadou Dieng Diallo la ñuy daal di teewlu ci micro Seydou euh, ki ci micro Bokar Kandé bon yoral ne ñu ngi koy xalaat xam naa ne ñu ngi def jéego pour ñu fay ko mais liñ ñu xam ni ñoom ñoo occupé loolu nañu góorgóorlu fay xaalis bi jiw semence yi xam nga boo amul xaalis doo mun a def semence semence euh, c'est un programme affaire la programme boo xam ni gagnant donc boo amul xaalis doo mun a def semence parce que da ngay jënd saak da ngay jënd vignette da euh, euh, da ngay jënd lépp da ngay transporter da ngay wàcce da ngay yëgal foo koy yóbbu xaalis la donc boo amul xaalis doo mun a def semence. kon yéen yoroon nañu semence bu tedd nii bu mu amul xaalis euh, euh, duma ko mun a defar parce que euh, bu xaalis amul il faut que ma ko mun a jéem a seet ndax naka lay fay sama bor yi pour ma mun a def hivernage. loolu loolu boo gisee ñu waat ah, boobu tardé na ba pare parce fu mu ne nii ñu ngi ci. Euh, mois de mai mai bu duggee rek hivernage dugg na donc bu ñu fayul xaalis bi ñun xamuñu fu ñuy dem parce que euh, bu boobaa ñun dañuy def lu ñu mën rek mais loolu du ñu ne l'autosuffisance en riz parce que loto en riz bu ñu fay xaalis bi ñu fay suñu bor yi ñu am matériel bi ñu mun a euh, bérénko pour am matériel bu bees bu ñu wone ni ñu mun a ko jënde il faut que ñu fay suñu xaalis euh, ma damay xayma parce que euh, yu ñu yu ñu yu ñu na deux wàllu politique la ñuy daal di addu ginnaaw nag ni ki démb bi ñu ko daal di biralee ñoom conseil constitutionnel jàpp ni daal amuñu yitte wala tolluwaay yu mën a daal di atte waaye nag dañu daal di dàq la nga xamante ni moo jëm càkkutef ci opposition bi daal di amaloon mu jëm nag ci li nga xamante ni moo di ñu daal di dàq wala ñu daal di annuler lii nga xamante ni moom moo di loi bi jëmoon ci wàllu parrainage gi te nag ñu daal di amaloon wat ko ci assemblée nationale noonee ku jëkk politique gi am ci mbetteel rax ci dolli ni ñoom danañu daal di dem ca CEDEAO ngir nag daal di fay kalaamelo loolee ñond ci ak Baba waa conseil constitutionnel yéen nañ yàbbi ci li nga xamante ne moo di requête bi opposition bi digaloon gannaaw ba ñu vote li nga xamante ne moo di loi parrainage bi waa conseil bi di wax ne ñoom mënuñu ko jugé benn yoon ndax lii bokkul ci seen cëggal guy dañu jàpp ni daal mbetteel la ak gàcce parce que mënuñu jàpp toujours saa yu bi defee recours am ñu ni leen ñun kat lii vraiment bokkul ci li ñu war a mën a attee ñun daal dëgg-dëgg bugg dog bugg dog duggul daal ci suñu compétence maanaam daal nous sommes incompétents nekkuñu daal ñoo xam ne am nañu qualification daal pour atte mbir moomu mais conséquence yu ba amul qualification atte une loi wax dëgg fa yàlla loolu jaaxal nañu. lii wane na ni réew mi dafa am ay institution yu dëgër te ku nekk xam nga li nga attan ak li nga attanul. donc tey jii conseil constitutionnel bu taxawee ne li nga xamante ne moom la opposition indi foofu muy maanaam nanguwuñu loi parenage bi nga xamante ni majorité bi moo ko décidé à l' assemblée nationale lu ñuy rafetlu la dañuy wane ni encore une fois institution yu dëgër la ñu am. teewul waa front démocratique social et résistance di wax ne ñoom du ñu bàyyi benn yoon ndax Assane Ba ak ñamu àndal ñoom daal nee nañu dinañu saisir ñi nga xamante ne moo di juridiction yi. ñun du ñu yem foofu. dinañ dem euh, à la chambre administrative euh, euh, de la cour suprême pour attaquer les décrets de convocation ensuite dinañ dem union africaine dem également à la CEDEAO ak ci yeneen organisation judiciaire yu bokk ci kuréelu Nations Unies kii bokk ci mouvance présidentielle bi moom daal mu ngi wax ne peine perdue la bu leen neexee mun nañu dem fu leen neex waaye jàpp naa ni perte temps lay doon rek ndaxte majorité bi li ñu bëgg nañ leen bàyyi li nga xam ne majorité bi moom la bëgg. mu nekk beneen jullitoo pour opposition parlementaire bi ñoom ñi nga xamante ne ñoo introduiroon benn requête ci conseil constitutionnel pour ñu annulé projet bi nga xamante ne moo jëmmal parrainage bi. Amadou sant ko gërëm ko ñu àddu ci leneen loo xamante ni nag xibaar bi jot nañ ko mu ñeel président directeur euh, général bu groupe origine SA El Ibrahima Ndiaye moom mi nga xamante ni nag dañ ko tabb mu doon PCA jiite kër gi nga xamante ni tabb nañ ko mu di ab société bu sénégalaise waaye nag jëm ci wàllu xarala gi nga xamante ni min na ko di télévision fii nii ci Sénégal télédiffusion mu doon TDS SA ginnaaw bi nga xamante ni nag tabb nañ ko ci loole ñenn ci ñu Euh, jamono lool wala ñoo xamante ni am na lu ñu xam ca moom yëkkati nañu ay ceede xam ne lii ak mérite la nga xamante ni am na ko ginnaaw liggéey bu mu daal di wane ku demee ni MSN ñu teewlu ko ci micro Ibrahima Diédhiou. naa profité waxuma koon ci français pour euh, nouvelle bi ma dégg pour 2STV pour la nomination du du du président El Hadj Ndiaye euh, patron de 2STV je le félicite. et vraiment je pense c'est une très bonne option parce que koo xam ne dafa am euh, télévision la euh, li liggéey na ci yàgg na yàgg te yaakaar naa ne dina indi lu bëri ci xam-xamam ci lii nga xam ne président de la république ak li nga xam ne gouvernement du Sénégal bëgg na ko def ci kaw télévision. mu doon kàddu yooyu la yëkkati ñu delloot ñu nit di ko sargal moom euh, président El Ibrahima Ndiaye ci loolee nga xamante ni. liggéey bu mu war a sasoo la yàlla oyofal li nga xamante ni moo di yenn bi ci kawam kon mbokk yi ñu daal di jàll ci beneenub xibaar bu ñeel wàllu cybercriminalité ak njublang ak tëgg wëndeelu gu ñuy nemmeeku ci yenn xarala yu yees yi mu doon loo xamante ni dañ koy faral nag di gis lu bari ni ki tey taxaw seetlu bi nga xamante ni jot nañ ko ci def ak wàllu jëm ci wàllu terrorisme xoq ak xoqatal gi nga xamante ni ñenn ñi mën nañu tondoor di nelaw ba yandoor loolee bokk na ci li tax ñu daal di am ab gëstu ci loolee ñu ànd ceeg Sahel Sissoko cybercriminalité nekk na loo xamante ni lëmbee na àdduna wërngal këpp rawatina état Afrique yi ndaxte nekk na phénomène loo boo xamante ni day nasaxal économie waaye tamit indi jafe-jafe ci wàllu militaire. Euh, ay système la yi nga xam ne euh, ñu ko defar pour mu fonctionner ni mu ko bëggee ñoo ñu tam mën nañ ci euh, ëllëgee bu ñu ci amee yeneen yeneen def ko ba nga xam ne wala mu niy ñu def nii lool. donc loolu mooy mbir mu njëkk bi mbir ñaareelu mbir bi nag mooy machine yi. Euh, dañuy waaj a dugg ci benn ère boo xam ne dañuy gën di gaaw ni ñuy calculer te boo xoolee sécurité bu jëm si jumtukaay yépp dafay nekk ci ay algorithme de cryptage yoo xam ne machine yu fi nekk tey ay ati ati at la ñuy soxla pour mën ko euh, kase ba dugg ci li nga xam ne moom la ñuy aar. ci loolu sax mën nañu wax ne askan wi moo ci gën a sonn te jamono bi nga xamante ni ñu ngi wax ay terrorisme moo tax nguur gi dafa war am taxawaay bu am solo ngir dàkk li demel Euh, mën nañu yaakaar ne sunu force de sécurité yi euh, yeewu nañu ba nga xam ne yépp li nga xam ne wax nañu ko def ngir aar ak ci wàllu renseignement nu ngi koy def te it wàllu aar boobu ci évolution am day dem ba nga xam ne ñu li ñuy wooye liberté maanaam ku nekk yaa moom sa bopp te euh, mbir yu la concerné ci yow la war a yem dina dem ba nga xam ne duñu xam ne di fa dañ koy teg ndax état dafay soxla information te information yi mooy mun tax mu aar citoyen yi te. waaye. yamul foofu. ndax wàll bi nu nekk nii euh, jumtukaay yi nekk na di nga xam ni réew yi dañ ciy xeex pour di jàppale seen entreprise ndax seen entreprise yi di mun na am koom-koom bu gën a yokku ndax euh, du du du wàllu karange nit rek ak jëmmam waaye karange koom-koom la loolu nag foofu nag la état yi état du Sénégal ak yeneen état yi nga xam ne même bu dee ay koom-koom yu ndaw la ñu tey dañ ci war a yeewu ba taxawal seen koom-koom ci nun koy aaree. ci ngir ëllëg mu bañ am yeneen koom-koom yoo xam ne ñun ëpp doole dañuy ñëw rek jël suñu koom-koom yépp ñun nag ñu daal di fi nekk nekk ci jafe-jafe. ngir xeex cybercriminalité état yi war nañ booloo nekk benn ndaxte phénomène boo xamante ni sonal na loolu askan wi waaye tamit ñu koy faral di jëfandikoo seen bëgg-bëgg mooy nasaxal économie réew mi te itam def ay ñaawteef. ñaawteef wala leneen loo xamante ni ak luuba laak njublang mën na la yóbbu ca ndungul siin foofe noonu nag tey lañu ñu dem am taxawal ab gëstu ginnaaw koo xamante ni xelam màccoon na ci naka la ñuy daal di euh, toppatoo ña nga xamante ni ña nga ca bërëb boobe loolu noonu ginnaaw ay at yu nga xamante ni liggéey na ko gis nañu ak nemmeeku gu jëm ci nii foofe noonu bari na ay doomu aadama ba jéggi dayoo ndaxte lim ba yenn saay da yokk ca la mu war a def boole ceet nekkin waak dëkkin wa dafay xaw di doy waar ba tax mu soññ nguur gi ñu am beneenub taxawaay buñ ci am te daal koy jëmmal Malick Cissé mu ngi tudd Waly Mbodj xamxamam xamam lool ci lépp lu jëm si milieu carcéral mu nekkoon surveillant de prison de classe exceptionnelle mu def fukk ak juróom-ñetti administration pénitentiaire si fanweer ak juróom-ñaar yu nekk fii ci Sénégal. trois ans de service dans les prisons et j'ai eu Sénégal. mu taxaw ngir def xayma ci situation carcérale fii ci réew mi. c'est boobu la jamono autorité yu administration pénitentiaire ñu ngi def ay jéego yu am solo ngir yokk nekkinu détenu yi ci kaso yi. ku ci ñëw rek dangay indi benn politique carcérale booy teg te en général li ngay indi du mooy arranger ña fa nekk du mooy arranger ñi fi liggéey waaw. kaso yi feesaay bi yàgg na mosta dëñ parce que récidiviste yi du jeex te tant que amul benn programme de réinsertion aussi mënta nekk mënta nekk dañuy dem di ñëw rek condition yi mu ngi tege certes mu ngi amélioré yokk mëni bi. surpopulation carcérale promiscuité wala lu ñuy wax longue détention jaaxal na ñu bëri moo tax mu am yaakaar ni dafa jot Sénégal appliquer peine alternative jëm si wàllum emprisonnement naka noonu ñu instituer lu ñuy wax juge des libertés et de la détention peine alternative moom je ne crois pas que gars yi mën ko nangu fii Sénégal compte tenu de l'application des pen ak disposition yi mu àndal bon peut-être dañ ne woon ñu am ay un mois ba six mois dinañ leen yóbbu travaux d'intérêt général lañ waxoon mais fii Sénégal dañuy appliquer benn dañuy teg benn loi mais duñ ko mën a appliquer donc te yooyu dafa am ay dispositions yu mu war a àndal parce que nit ki soon doo ko yóbbu kaso dinga nga ut foo ko teg boo koy liggéeyloo aussi di nga ut ñuy xëy di ko escorter ak fa muy liggéeye bërëb ba pour mu bañ a dem kaso loolu suñ ko mënoon dinañ mën a accompagner peine alternative yooyu mais loolu amul dañ koy wax nii rek. politique pénale bu jaar yoon naka noonu ak politique bu réinsertion sociale la ñëpp di xaar ci autorité yi. réinsertion bi kooku moom il faut que état bi indi programme bu wóor teg ko parce que ñii bu leen bëggee dimbale du tëj la cinq ans nga tëdd di sangu. di entraîner sa bool di jógee ci biti ji ñëw ngay lekk ba suur boo génnee defiwaat lu raw loolu ngay xalaat donc kon il faut que ñu organiser leen jéem a def au lieu que ñu leen bàyyi ñu tëdd ñu créer ay pôle de développement. Waly Mbodj am yaakaar ni foog état wu Sénégal gën indi ay coppite ñu ñu xoolaat tolluwaayu kaso yi fii ci réew mi. Aladji Malick euh, Cissé ñu jàll ci ñaareelu pàccu xibaaru marax gi bokk na la ca gën a fës mu jëm ci wàllu caadaa ak cosaan danañu daal di am koo xamante ni artiste plasticien la bu ñu daal di fas yéene daal di seeti ngir xool nag la nga xamante ni moom lay jëmmal di ko doxal ak lam cay dundee yaakaar ginnaaw beet ñu àdd ci lu jëm ci wàllu ak set setal gu nga xamante ni am na ci HLM ngir waajal lii nga xamante ni nag moo di nawet bi nga xamante ni mu ngi waaj a ñëw ak la mu mën a jur ñu daal di fagaru laata ñoo am ca lu ñu jëm mu jëm ci wàllu ak faju danañu waxtaaneet leneen lu nga xamante ni ñeel na niñ ko mën a daal di dippee la nga xamante ni nag moo jëm ci yenn sëy teel yi ak xarafal jigéen mu doon loo xamante ni doy na waar ñu koy nemmeeku ca Sédhiou ba tey bokk ci lenn loo xamante ni ña ngi koy xeex Amnesty International mbokk yi noonu ñu ko waxee lañ ko fas yéene daal di lu jëm nag ci liggéey bi nga xamante ni moo ñeel ak ndaw ñi mu mel ni nag am na lenn lu nga xamante ni taxawal nañ ko ci ngir xool nag ñoom lañ lañ mën a jàpp ngir daal di mën a taxaw te jàppale seen réew ka yëkkati ci seen kaddu di moxtaala ñi ngi ci éducation ñi ngi ci formation professionnelle ñi ngi ci accompagnement des femmes employabilité des jeunes loolu ñi ngi ci parce que ñi ngi liggéey ak conseil régional de la jeunesse par rapport à la citoyenneté par rapport au civisme mais ñi ngi préparé benn forum de l'emploi boo xam ni am nañ comité départemental boo xam ni mettre nañ ko en place au courant du mois de juin forum boobu dina dina nga xam ne jeunes yi dinañ dinañ leen orienté ba nga xam ne bu ñu fa jigee dinañ xam ban porte la ñuy fëgg pour mën a am liggéey. ci micro Seydou Diatta Kaba Cissé ñu àddu ci nañ ko waxee woon lu fa soriwul dara ca Sédhiou la ñu daal di jëm ginnaaw si gil coor waxtaane nag yenn ci tout tànk yi nga xamante ni ña nga cay nemmeeku ni ña nga leen di day xarafal waaye tamit sëy yu teel yi nga xamante ni ña nga ca jigéen ña bokk ci lu amnistie di xeex ba jàpp ni nag fi mu toll nii jot nañu gën a ñaax askan wi ngir loraange yi nga xamante ni mën na tukkee ci suñu jigéen ñooñu ak tout tànk yi ëllëg ñoo ànd ci ak Robert Diandi. donte sax am na ay sart ci réew mi ñuy tere ñu xarafal xale yu jigéen ñi waaye fii ci région wu Sédhiou ñu ngi wëyal jëf yi ni mel di ci làqatu nag li ni mel nag metti lool waa am na Amnesty International. dañu seet ne bi ñuy liggéey ba léegi ci àq ak yelleefu doomu aadama li nga naan sëy yu teel yi ak euh, jongal yi ba tey mu ngi fi. même boo demee ci yenn communauté dañ koy nëbb parce que léegi liir yi lañ koy def wala xale yi gën a ndaw tey bi li ci ëpp dañuy jàll frontière ba ñu demee Casamance yu dañ naan ne dañuy jàll frontière dem Guinée def ko ba pare dellu si ñu dem bu dee côté Bakel ñu dem biir Mauritanie def ba pare ci village Mauritanie ba pare dellu si. kuréel googu nga xam ne dafa taxaw ngir aar àq ak yelleefu doomu aadama yi. dafa jàppale ngir xeex ak mettital yi nga xam ne ñu ngi koy teg xale yi jigéen ñi faw rek ñu waxtaan na ñoom ci seen àq ak yelleef. donc bu ñu kon continuer ci loolu xam leen leen lii lii lay gaañaate lii lay def ci yow nga faatu fa nga ñàkk ber nga ñàkk ber wala bés bu ñu lay sëyal itam di nga ci am problème donc ñoom dinañ fexe ba mu changé. looloo waral nag ñu tàmm ci jaarale ko ci jàngalekat yi nga xam ne ñu ngi bawoo ci ay dëkk yu mel ni Jiree ji Jànn Malaari ji Sédhiou Sàmmi nag Goudomp te mu laajoon itam ñu tàggat leen ci wàllu àq ak yelleefu doomu aadama. buñ delloo si école yi dañuy taxawal lu ñuy wax ay club. yoo xamante ne dañ si dajale xale yi daal di leen xamal lan mooy seen i ax ak seen yelleef daal di leen xamal lan la xarafal di jur lan la teel a di jur ba xale yooyu xam ko ba xam ko xam boo xam te ne bu ñu jugee tey dem si kër gi ñu war leen bëgg a xarafal wala ñu gis ñuy xarafal seen i rakk dinañ mën a taxaw xeex loolu nuñ koy xeexee gis xool dem boole. si International mu ngi ñaax itam askan wi ñu boole képp ki nga xam ne mu ngi def ñaaw teef yu mel ni xarafal jigéen wala teel koo maye mu sëy ndax kat loolu loraange rek lay jural xale yu jigéen ñi. ñu dellu si waat Ndakaaru dem ci HLM 5 ngir waajtaayug euh, nawet bi ñoom nag fagaru nañu daal di jëndi lépp loo xamante ni jëm na ci mbalit mi ak set setal bu nga xamante ni moom la ñu am loolee nag lañ ca daal di jublu ak lañ ca wund du leen dul fexe ba seen gox boobu noonu amuk cet cell ñu ànd ceeg Fatou Niang Seck. fukki waxtu ak benn ci suba romb na ñu ngi fii ci HLM 5 fii nag ñenn ci ñi fi dëkk ñoom ñoo amal ab journée ngir set setal muy mag ak ndaw ñëpp génn nañ seeni kër ngir fexe ba seen dëkkuwaay yi set. depuis 74 ba tey ñu ngi fi mais yàlla dafa def ñun ñoo bokk ndey bokk baay fii bu bu dara mettee kenn sax ñun ñëpp dafa ñuy metti lii nag sunu yaay yi ñoo ko xalaat ak xale yu góor yi sunu koñ bi bëri na suuf salte na ñu ne ñu jóg si pour HLM yëpp roy si ñun ñu jàpp si dóorandoo xàccendoo ndax sunu càmmiñ yi ñoo ci jàpp. xam xam nga ñun jigéen mënuñu dara ñii ñoo ci jàpp ñoo génne seen doole ak seen xalaat def si ak nawet bii di waaja a ñëw bile initiative nag daf cee gën ba tax na sax waa koñ bi ñu ngi woo autorité locale yi ngir ñu gestu leen. bëgg nañ nag ah ñu jàppale ñu ci tam pour ñu mën a pavé koñ yi parce que HLM bëri na suuf HLM ale moo fi amoon mais léegi ale amatu fi booy dox ci suuf booy bu sa oto nekkee fii ca dafay paan. dañu bëgg nag chaque fin du mois ñu réunir fii benn ñu xool lan la ñu mën a def ñun ñu génne suñu poche bopp def ko benn kees ñu pavel ku ñu pavewul ñu pavel suñu bopp gis nga bu nawet bi jotee kër yi douche yëpp ay génn dañu am problème ko pourquoi ñu déjji woon àll bi nii dañu amoon problème suñu tuyau yi ONAS ñëw dindi ko ba pare defaru ko bon léegi nag moo tax gis nga àll bi nu mu mel après ñu daal di ko defar. bile geste bi ñu dëkk fii ci HLM 5 doon na ab manière ngir ñu woo seeni ay moroom ñu def lu ni mel ak fu ñu mënti dëkk loole lépp ngir wane ne ak set moo war a njëkk ngir nga mën a am dëkkuwaay bu gën. teg ca wér gi yaram ñu jàll ci wàllu caada cosaan ñun nag jotoon nañu daal di dem wuti la nga xamante ni jëm na ci lu ñu mën a jëmmal ci lu jëm ci art plastique tax ñu daal di seeti Gallo Bob moom nag maam Gallo Bob bokk na ci ñoo xamante ni dañuy xeltu di xalaat di def loo xamante ni tey buñ ko jëmmalee ci wàllu aar dana am lu bare bari loo xamante ni bët dana ko daal di fees ni ki tey moom la ñu daal di fas yéene jëmmal ginnaaw astu jonn ba mu dajee ak moom. ay jupe ak ci robe yu ñu defaree saaku ceeb ak it ay fulaar ak ci loxo mbubb yu ñu defaree këyit yemul foofu ñu jël canapé bu yéeme bi tuddee ko ma ñu ngi fii ci exposition bu artiste Mame Galo Bob biennale bi woy di fësal liggéeyu doomu Sénégal yi rawatina artiste bi nga xam ni lépp ci xalaat ak concept bu wóor la ko teg. biennale bi dama ñëw at benn genre force boo xam ni depuis 2006. laa def biennale bu mel nii. li ma gën a fësal euh, mooy Birima xam nga euh, Birima kanaape bi parce que euh, tey dama gis Casamance seen bant yi nu mu amee njëriñ mu leer ma ne tey mën nañ si liggéey moo tax ma dem ba foofu def samay recherche jël fa benn kanaape boo xam ne dama ko liggéey sans machine menuiserie laal ko lépp loxo laa ko liggéey ba mu pare. ma teg ko di ñaan euh, pour mu jéem a fexe ba président dugal ko musée africaine bu bees bi. thème exposition bi nag dafa dellu firndeel beneen xar kanam bu liggéeyu aar am ndax ci la profité di ñaax ak delloo si xelu nit yi si yar ak doxalin bu rafet diggante doomu aadama yi. kiy jàngale war na am benn yërmande si jàngale bu muy def mais kiy wut xam-xam tamit war na mën a tarbiya lu muy mais kiy jàngale nag moom da il faut mu jiital yërmande thème boobu laa koy indil ñu defar ko. tuddee ko vertu ci digub événement bi lu ëpp juróom fukki création wane nañ leen fii benn bu ci nekk di wane xam-xam ak xarañteeb artiste bi di Mame Galla Bopp xaar ay œuvre bokk ci ñuy tànn yóbbu ko fële ci bërëb bi gën a mag bi ñu exposé lépp luy aar fii ci biir Sénégal. jajëfal leen mbokku téléspectateurs yi ñu doon topp bay taataane seen i xibaar yu wér te wóor ci première chaîne privée bu Sénégal de stv juróom-ñetti waxtu ak Cheikh Diaby lay doon kon ñu fasalante yàlla muy borom jàmm ku mu may jàmm nga am jàmm borom kun fayakoon yàlla na ko yàlla xëpp ci ñëpp lépp fépp wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu jërë ngeen jëfati.